nañ la nuyoo wax ko ba pare su ko defee kon maa ngi maa ngi amaat mbégte teewaat fii ci plateau bi di nuyu askan wi nga xamante ne ñu ñuy bàyyi xel di nuyu également sama mbokk yi nga xamante ne ñoom laa nar a seqal waxtaan bi tey di am yaakaar rek ni liñ fi nar a waxtaanee yëpp dina jëriñ képp koo xam ne yaa ngi ñuy dégg. muy lan muy seetaan muy lan. wàllum justice tey nag dañuy jéggali rek li nga xamante ne moom mooy mutinerie rëbës bi mm-hmm. euh, daanaka mën na buñ koo bàyyeegul ndax te am na mbir yu bëri yoo xamante ne daf ci bees diggante bi ah mooy mm-hmm. information yoo xamante ne askan wi dañ ko war a xam Euh, waaye tey li nga xamante ni moom la ñuy gën a jagleel ci waxtaan bi moo di dafa am gan bu ñu fi dalal. Mhm. muy wuyoo ci tur Baïdy Guèye alors mu nekk nag expert en détention mu nekk également euh, directeur de prison à la retraite daanaka moom bi mu nekk en service sax jaar na prison yu bari. Mhm. Euh, foo xamante ne ba mu fa jaaree tam am na ay liggéey yoo xamante ne administration pénitentiaire ràññee nañ ko ci lu mel ni prison bu Matam jaar na fa. prison bu Diourbel jaar na fa Kébémer Cap Manuel pavillon spécial pavillon spécial mooy euh, bi nga xamante ne moom moo nekk fële biir Dantec te ñu fa yóbbu détenu yi nga xamante ne euh, dañoo feebar moom tamit également jaar na fa ak tamit yeneen prison lu ci mel ni bu Bakel bu Bambey ak tamit prison bu Linguère bi nga xamante ne daanaka fa la retraité en 2012 alors ci casquette boobu nag euh, dalalee tey préfet kon ñu waxtaanee lépp loo xamante ni rek aju na ci mutinerie bi nga xamante ni xewoon na rëbës ba am ko ci ñàkk bakkanam ak tamit ay nit yoo xamante ne euh, gaañu nañ ci bu ñu sukkandikoo ci bi. d'accord ñu bàyyi su ko defee kon dama koy jox kàddu gi rek bàyyi ko mu nuyoog euh, askan wi. Ah, jërëjëf Pape euh, maa ngi nuyu di nuyu ñu nekk ci plateau bi yëpp alors di nuyu aussi téléspectateurs yi nga xam ne ñu ñuy seetaan. Euh, di nuyu sama collègue yi nga xam ni euh, ñu ngi may seetaan it di ma mën a censurer ci par rapport ak li may wax di nuyu aussi euh, ñi nga xam ni maak ñoom bokk nañu liggéey ci bitim réew maanaam Côte d'Ivoire parce que jaaroon naa benn émission ci temps yële ñoom ñëpp dañu réagir ci Facebook di ah xamuñu li nga doon wax de parce que wolof nga doon làkk mais quand même vraiment xam nañu sa valeur xam nañu vraiment li fi liggéey ci Côte d'Ivoire waa Congo aussi c'est la même chose donc euh, ngeen jéggal ma de temps en temps aussi dinaa ci buruxlu dugg ci ci tubaab bi tuuti pour ñooñu di ma seetaat mën a xam li may wax lan la voilà merci beaucoup et je suis à votre disposition. ok euh, balaa may ñëw ci question directe yi li nga xamante ni moom laa bëggoon am mooy benn une lecture globale euh, par rapport à ce qui s'est passé Rebeuss maanaam événement mardi septembre yi nga xamante ni euh, bu ñu sukkandikoo ci version yi nga xamante ni jóge na fa mutinerie moo fa am jàppante boo xamante ne dafa doxoon ci diggante détenu ak ñi nga xamante ñoom ñooy garde yi mujj gi officiellement ñu wax ne benn nit moo ci ñàkk bakkanam ak 41 blessé 27 yi ci côté détenu yi la 14 yi ci côté ñi nga xamante ne ñoom ñooy euh, garde pénitentiaire yi en tant qu'expert en détention ban lecture globale ngay def ci situation boobu nga xamante ne am na rëbës waaw lecture globale bi ma ci def mooy le premier constat Pape moo di euh, kaso dina mën a am mutinerie day am ay signaux forts yoo xam ni day wane ni ça ne va pas le climat n'est pas mais ci kaw signaux forts yooyu régisseur directeur de prison bu njëkk ba lañ daan wax régisseur bu ma waxee régisseur rek jàppale ni directeur laa wax directeur de prison dafa war a dugal ci biir ay système d'information yoo xam ni dina ko permettre mu mën a décrypter yenn messages yi yenn sign yi yenn manifestations yi parce yi xam ngeen ni bon mën naa wax ni mutinerie bu amee dafay am ay causes yu ñuy wax c'est des causes lointaines yoo xam ni yu yàgg la on est sans venir ak causes yoo xam ni c'est les causes immédiates moom mooy tax mutinerie am maanaam li koy lal yépp actuellement mën nañu wax ni fii Rebeuss mauvaise condition de détention la les gens vraiment vivent dans la promiscuité ils vivent dans une situation de confinement Parce que quand même, il faut le dire, les infrastructures de Rebus ne règlent pas le problème de l'effectif. Donc Rebus est dépassé par rapport à l'effectif qu'on y envoie. Ce qui fait que les détenus confinés, ils ont parlé de confinement, ils ont parlé de problèmes d'alimentation, hein, que l'alimentation n'est pas adéquate, et surtout ils ont parlé des problèmes de longue détention, préventive surtout. Donc yooyu ces effets conjugués ñoo indi ba détenus yi grève de la faim d'abord signalé wu par une grève de la faim et je dis quelque part que la grève de la faim c'est un droit pour tous les détenus et même pour toute personne éprise de liberté peut manifester ses sentiments par une grève de la faim mais cette grève de la faim doit être décryptée des mécanismes qui doivent être mis en œuvre c'est-à-dire quand les détenus Euh, font un mouvement d'humeur, le directeur de prison doit tout de suite alerter l'autorité judiciaire et l'autorité administrative. L'autorité judiciaire, c'est qui C'est le procureur de la République. L'autorité administrative, c'est qui C'est le gouverneur ou le préfet. Comme ça. Parce que le gouverneur, c'est le président de la commission de surveillance. Dans chaque établissement pénitentiaire, il y a une commission de surveillance. Et c'est cette commission de surveillance qui doit se réunir périodiquement pour maanaam saytu kaso ba la fa nekk dañuy déglu dina ñu déglu personnel bi ñu xool la fay dox ak lu fa doxul ba pare def seen rapport envoyé ko kilifa yi alerte ni kat kii bu ñu réglé wul problème bi ak problème bi ak problème bi lii mën na jur lii mën na jur lii mën na jur la lee. mais dans la pratique est-ce que ñu ngi koy def. commission de surveillance dañu changer à un moment donné les textes à l'époque préfet yi ñoo doon président de commission de surveillance mais léegi ñu yóbbu ko à un niveau très élevé def ko gouverneur mooy président commission de surveillance et maintenant les membres de la commission de surveillance ils ont renforcé dugal ci urbanisme dugal ci euh, les services sociaux ba nga xam ni gouverneur ak emploi du temps et tout ce qui s'ensuit je vous dis que c'est rare ba ñu doon xayma ci 2016 bi wala 2015 bi ñaata gouverneur ñoo présider commission de surveillance ñëw ci kaso yi di saytu lu néew lay doon donc loolu il faut dire que doxul doxaluñ ko ni mu war doxalee. il faut ñu saytu ko parce que réforme boo ko defee. da nga koy li ñuy wax évaluation à mi-parcours. à un moment donné tu dois faire l'éva l'évaluation à mi-parcours. pour mën a xam ndax lii nga réformer baax mais moi je trouve qu'à mon humble avis. vraiment c'est pas une bonne ok euh, lu mel nii fu mu am mënul ñàkk lu ñu tuddee ay responsabilité maanaam ñi nga xamante ne ñoom ñoo waral mbir mi. Euh, mais dañu seetlu ne ba fi ñu toll nii amul benn mesure conservatoire boo xamante ne jëlagum nañ ko maanaam mbir am na. ñu jëlagum ay matuwaay pour que lu mel noonu kat bañati fi am laata enquête bi di jeex ñu xam kan moo def ak kan moo deful mais mu mel ni euh, loolu gisuñ ko fii te bu ñu xoolee tuuti bu ñu delloo tuuti ci ginnaaw gis nañu ay cas yu moins grave yoo xamante amoon na mais jëloon nañu ay mesures conservatoires bu ñu fàttali ko évasion bi amoon prison des femmes bi nekk fii Rufisque mooy journée journée sans femmes dans les prisons bi fii président Wade maye mu am euh, ñetti nit yoo xamante ne ay ressortissants étrangers lañ benn sud africaine benn ghanéen et cetera boo xamante ne kenn ku ci nekk da nga waroon purger 10 ans de travaux forcés parce que dañu leen condamné woon ku nekk pour trafic de drogue. ba évasion boobu amoon directrice prison bi dañ ko relever mu am ay gardes pénitentiaires yoo xam ne sax dañ leen placer sous mandat de dépôt muy benn te loolu évasion kese la woon amul benn nit bu ci ñàkk ba kanam ñaareel bi ñu daal di ko fay teggi beneen cas bi ñu ci mën a joxe mooy inspecteur Loum bi nga xamante ne moom moo ko fa précédé woon moom également li ñu ko fa relevé moo dina dafa am évasion bu amoon ak grève de la faim donc yii mu nekk loo xamante c'est moins grave par rapport à ce qui s'est passé euh, am nit ñu ci jàpp mag ñàkk seen bakkan dafa am garde yu tiré ci waroon ci ay détenu te waruñ ko woon def ay élèves garde lañ fa indi ba pare information bi dañ ko doon nëbb hiérarchie bi ay procureur ak DAP pour que ñu mën a ñëw à temps tey bu ñu doon situer responsabilité yi de responsabilité yi fan la tàmbalee ak fan la yem. Euh, merci Pape ci question bu pertinente boobu nga ma laaj et gis naa ni sax def nga fi benn rétrospective boo xam ni wane na li fi xewoon yépp sax yaa ngi suivre bu baax la chose pénitentiaire et ça je dis euh, tu mérites des félicitations. Et vraiment, tu mérites des félicitations pour le suivi et surtout l'expertise. Mm-hmm. Hein, l'expertise qu'il a. parce que yàgg naa la suivre say émission mm-hmm. et gis naa ni vraiment yaa ngi dérouler expertise bu am solo loolu nga wax am na solo parce que en fait pour situer la chaîne de responsabilité le premier responsable dans un établissement pénitentiaire c'est le directeur de l'établissement il faut dire que wax naa ko léegi y a des signes précurseurs bu fekkee ni nag euh, yow yaa ngi gis signes yi di ko tre euh, di ko décrypter te jëloo matika matukaay yi nga ko xam ni war nga ko jël pour euh, loolu bañ a am mutinerie boobu bañ a am je crois que c'était un problème très facile à régler Pape gis nga ñun suñuy jamono et jamono boobu sax weesoogul parce que le ratio qui existe entre le personnel, l'effectif hein, de surveillance de la prison et la population carcérale, il faut dire que c'est un ratio de 1 pour 200 ou bien 1 pour 300. Alors que les normes standards internationales disent que il faut un surveillant pour deux détenus. fii boo demee Rebeuss imagine-toi à calculer ñaata surveillant ñoo fa nekk ak ñaata détenu ñoo fa nekk donc mën nañu dem benn ratio boo xam dina dem ba un pour 300 ou un pour 400. donc ça veut que ñooñu détenus ya fa nekk il faut dire man def naa Côte d'Ivoire def naa Congo mais fii Sénégal euh, bu dara desul lu dul wax dëgg ñun suñuy détenus jàmm lañ leen xamal parce que dañ leen di gérer avec humanisme bañ nañ ko ba administration pénitentiaire française bi ñu ñëwee fii Sénégal def saytu kaso yi def visite ainsi de balaa ñuy dem dañu ni ah ici au Sénégal nous avons appris l'humanisme humanisme boobu nag moo tax te cet humanisme là dafa di loo xam ne ñun suñuy valeur la jéggaani wuñ ko fenn ñun dañu bare yërmande yërmande boobu nag lañuy ñuy gérer détenu yi ba ratio boobu nga xam ni c'est alarmant kooku wax mu ni day tiit Côte war boo demee garde yi du ñu dugg ci kaso bi ci bit ñëpp ci biti la ñuy taxaw yow boo ñëwee sax en dans le cadre des Nations Unies bugg def sa liggéey ci biir kaso bi tu te retrouves cent 300 400 détenus ci biir kaso bi yow rek ak ñoom garde yi daal si biti la ñuy taxaw yore seet fetal ku bëggu daw ñu tiire sa kaw ñoom noonu lañuy ñuy mais fii liggéeyewuñu noonu donc il y des éléments du secteur ñoo xam ne dañuy nekk ak détenus yi ci biir bi ma newee Diourbel dinaa ñëw sa question de bi ma newee Diourbel alors détenus yi def bruit de botte ci biir cour bi parce que ils étaient en surnombre il y presque euh, 300 détenus dans la cour et il y que deux secteurs jékki-jékki ma toog dégg tël un coup de bi ma dawee ñëw je trouve Waly mbooj souvent je crois que dinay jaar seen plateau mhm. la euh, Waly Mbodj mhm. ñëw yéeg ci kaw terrasse bi tiré coup de feu bi mu tiré coute de feu c'était un tir de sommation tout de suite les détenus sont dit que attention kii bu ñu deful ndànk il va tirer sur nous rak-rak ñu dugg ci biir néeg yi ça permis au secteurs à l'intérieur de fermer donc il y a des techniques et des astuces qu'il faut pour gérer et ça li koy def mooy expérience bés je contre elle c'est Agnès mais elle est elle n'est pas encore mûre et elle n'a pas encore l'expérience qu'il faut pour gérer une prison de l'envergure de Rebeuss Rebeuss ñu expérimenter lañu fa war a yóbbu il faut dire que la la crème actuelle de l'administration pénitentiaire elle est très jeune inexpérimentée li koy wane mooy chef de division yu bare fii c'est des stagiaires alors que le chef de division devrait être quelqu'un rompu à la tâche qui a fait tout le cursus ah jaar fu nekk ñu doog ko def chef de division parce que dina ko permettre mu comprendre lii xew ci suuf na ñuy liggéey ci suuf dina ko mën a analyser mais c'est pas le donc première chaine de responsabilité mooy responsable prison bi mooy directeur u prison bi mais nag jëlul matukaay yi mu war a jël pour loolu bañ a am deuxième chaine de responsabilité c'est le directeur de l'administration pénitentiaire tout de suite moom mu loolu amee dafa war a jël moom it matukaay yi sans créer ce qu'on a créé c'est-à-dire il faut dire que les gens ont eu la gâchette gâchette facile. Mm-hmm. ministres yi yàgg na am ci kaso yi mais mosuma fi dégg ñu ray fi nit ils ont eu la gâchette facile il faut d'abord mettre en priorité des mesures conservatoires pour contenir la manifestation à l'intérieur d'une prison parce que bu ñu nee dañu doon daw mais prisonnier fu la yoon mayee nga tirer mooy que le prisonnier le détenu excusez-moi du terme franchisse le dernier rempart c'est-à-dire bu génnee bay daw ba génn dernier rempart bi foofu la la yoon maye nga tiire mais ci biir kaso yoon mayu la nga tiire ci ay nit la loi ne le permet pas de responsabilité le directeur de la prison deuxième chaîne de la de responsabilité le directeur de l'administration pénitentiaire et il y a une troisième chaîne de responsabilité mooy le ministre quand il est venu revenu de de de, de mission mm-hmm. qu'est-ce qu'il a dit ah il a félicité les surveillants qui s'ils n'étaient pas ces surveillants là ah waa Rebeuss les gens allaient sortir allaient, ils ont présent ils ont diabolisé les détenus alors que les détenus du Sénégal ne sont pas des criminels c'est pas des criminels ils les ont diabolisés bu ñu génnoon fii tey Rebeuss kërti kërti alors tout de suite ils veulent mettre euh, ils veulent jeter l'opprobre sur ces détenus qui n'ont fait que manifester pour revendiquer des droits c'est donc loolu moom war nañ ko war nañ ko war nañ ko leeral waaw damay desandi foofu noonu maanaam euh, li nga xamante ne moom mooy euh, fi loi bi may gàdd yi ñu tiire alors foofu noonu euh, nga leeral bu baax a baax loi bi lan la ci wax maanaam bu fekkente ne dañu nekk ci biir wala tam bu fekkente ne yan condition la ñu may garde mu tiire ak buy tiire tam fan lay tiire fan la war a tiire ci ci ci détenu bi na condition yi kay leer na c'est-à-dire nee naa le détenu buy évadé dernier rempart bi ah, nga xam ni daw rek a ci des passé na premier secteur deuxième secteur dem ci portail bi ba portail bi nga xam ni foofu lay génne dem ci mbedd mi mhm. foofu la la la yoon maye nga tiire te balaa ngay tiire maanaam di nga def sommation mhm. sommation mooy lan alt bu continuer dem nga ne ko eh, halte la au large troisième sommation halte où je fais feu bu fekkee ni taxawul nag tu tires mais en visant à, à ne pas chercher àll tuer okay. pour le neutraliser et l'amener à s'arrêter maanaam tiire ko foo xam du pour rey ko mais pour tànk yi ngay viser mhm. pour bu boo ko tiiree ci tànk yi mu jam ko mu taxaw voilà et je crois que sax détenu yi fii du ñu egg foofu foo foo leen di defee sommation yooyu d'accord boo déree benn coup de feu rek ñëpp dañ naan nem waaw nañu waxante dëgg euh, leneen loo xamante ni jaaxal na mbir mooy mhm. bi amee am na ñoo xam ne dañ ci jële ay gaañu gaañu ñu daal di yoon li yóbbu ci hôpitaux yi pour faj leen Euh, li nga xamante ni moom moo ci am nag mooy am na ci ñoo xamante ni wér ba dellusi nañ ci prison bi mais am na ci ñoo xamante ni ba léegi dellusiwuñu donc à ce jour am na ci treize détenus yoo xam ni ba léegi kenn gisu leen kenn xamul fu ñu nekk seen parents yi bu ñu jógee di dem ci hôpital yi pour seeti seen doom yi gaañu duñu leen permettre ñu mën a def li nga xamante moom mooy visite bi foofu tamit également wàllum visite bi bëggoon naa nga fàttali lan la ci loi bi wax réglementation bi par rapport ak li la visite euh, euh, la visite c'est un droit pour uh-huh. tant que détenu bi mi ngi respecter discipline bi mi ngi respecter les règles te détenu bi sax bu ñëwee prison bu nekk war na am réglement intérieur réglement intérieur boobu moo koy wax yow lii nga mën a def lii mënoo ko def donc ce réglement intérieur doit être affiché et non seulement affiché au niveau de la prison mais ce règlement intérieur doit être porté à la connaissance de détenus et traduit dans la langue qu'ils comprennent wax leen ni lii ak lii ngeen am droit def maintenant euh, li li li euh, sa question mooy lanati encore. maanaam waaw waaw la la bi ñuy limité. voilà les détenus introuvables c'est-à-dire que bi affaire bi amee euh, l'approche administrative ni ñu ko waroon doxalee mooy le procureur devait descendre sur le terrain su ma nee procureur du jëmm procureur mais la am l'autorité judiciaire parce que le c'est le chef. de l'exécution des peines procureur mooy saytu peine yi nu koy doxalee ci biir kaso bi bu loolu amee événement bu mel noonu warul xaar ñu koy woo moom moo war a descendre sur le champ au niveau de l'établissement que ci gannaaw gi la dem sax. ci gi laa dégg ni dem fa mais loolu si sur le champ la waroon ñëw au niveau de l'établissement comme ça bu ñëwee à partir de l'effectif du jour ñu def le décompte contradictoire après les événements, on fait le décompte contradictoire pour voir l'effectif qu'il y avait, décompter seet saytu xool ña fa nekk ak ña fa newul. léegi ñi nekk hôpital mën nañu xam nombre bi ña fa yi mën nañu xam nombre bi mais après écart boobu écart boobu moom la ñuy wax souvent quand il y a naufrage des disparus. parce que gisuñu leen teguñu leen bët. Mm-hmm. disparus yooyu disparus yooyu nag fu ñu war a nekk. loolu nag lu jara sàmbat la lu lu jara càmbat la war nañ ko xool on doit vraiment voir où sont passés ces gens là tu parlais de droit de visite les visites comme je disais c'est les autorités judiciaires qui délivrent les permis de communiquer s'ils sont prévenus et le juge d'application des peines s'ils sont condamnés maintenant quand le juge délivre un permis de communiquer en bonne et due forme que le détenu soit en prison ou qu'ils soient hospitalisés, c'est du pareil au même. Les parents des détenus ont droit de visiter leurs euh, le, le, le, parents qui sont en prison. Ils ont ce droit. Bu dee hôpital, on dit que là, dans les mêmes conditions que s'il était en prison. Seulement l'administration pénitentiaire prend toutes les mesures idoines pour sécuriser la visite à l'hôpital parce que kat yow waxuma la détenu sa mbokk bu feebaree di nga dem seeti ko hôpital sa mbokk bu nekkee prison ci nattu la nekk di nga dem seeti ko hôpital donc kooku kenn mënu ko bañ te lii ju taxaw naan dañuy xaar di nëggandiku les gens moom ce n'est pas normal du tout on doit faire la situation euh, après la mutinerie pour voir les détenus qui ont disparu ñu xool leen beneen affaire def ci am pap et tool loolu moo lay wan ne toujours ñun dañu xaw a tardé au niveau de l' administration pénitentiaire boo demee Côte d'Ivoire toutes les prisons sont informatisées ils ont un greffe informatisé donc il suffit de cliquer pour trouver tel détenu sa peine lépp tous les renseignements qui concernent le détenu jusqu'à sa date de libération bu ñëwee taf jour bi lépp affiché ñu xam ni ñii ñoo war a libéré donc l' à temps réel tu peux tout le temps le savoir parce qu'il y a un système qui le permet ici waxoon nañu dañ koy def boobu ba léegi ñun à l'époque bi ñu créé DAF ñuy defar carte d'identité yi ñu nekk ñun ministère de l'intérieur dañ ñu woon dañuy def projet boobu kan moo ko bañ un directeur colonel de gendarmerie c'est comme si les gens souvent refusent le progrès alors que il suffit de mettre l'empreinte tey alias yi lal la ça difficile parce que da ngay gis détenu boo xam ne day ñëw sous fono nga tudd Pape Ndiaye mais boo ñëw prison pour ñu bañ la xàmmee euh, tengal peine bi da ngay ñëw tudd. voilà beneen yoon nga ñëw tudd Modou Ndiaye beneen yoon nga tudd Samba sa Sambatine ainsi de suite moo tax ñuy def alias alias alias alias pourquoi parce que euh, garde yi leen di euh, surveiller dañ leen di xàmmee. Mm. alors ñuy def alias yi alors que sur la base des empreintes digitales avec un. Euh, un logiciel programmé oh, am nañu sax ñoo xam ni si ñun la ñu nekkoon ñu xarañ ci informatique tout de suite tu mets l'empreinte nañ la génneel sa tour yëpp bu fekkee ni am nga carte d'identité sa identité réelle daf ciy feeñ mais tey ñi nga xam dañu ñëw di nëbbatu bañ seen parent yi sax xam ne ñu ngi prison dañuy dem tëdd ba pare bu ñu ñëwee ni dama demoon Mauritanie wala dama demoon Gambie ñooñu bu ñu leen rayee ñu ñu xamee ni rey nañ leen mm-hmm. ñu ñu xamee seen parents d'accord man li ma bëggoon xam rek ñëw na léegi ci euh, refus bi nga xamante ne moo amoon bi ñu bëggee defar fichier euh, bi nga xamante ne moom nga doon wax léegi refus bi ci ban yan base lañ ko tegoon ci ci ci kii jamono jooju. c'est-à-dire que teguñu ko ci benn base bon c'est-à-dire xam nga am na ñu koy wax y a des gens qui sont réfractaires au progrès et au développement boobu ñu ngi ministère de l'intérieur et la DAF la direction de l'automatisation des fichiers avec l'outil informatique ils étaient prêts à mettre, à mettre à nos dispositions, à la disposition de l'administration pénitentiaire, vraiment les logiciels et tout ça, comme ni ñuy jëlee carte d'identité yooyu. ñu mën a di identifier détenu yi mais directeur ba fa newoon bëggoon nañu sax may ordinateur yu bare parce que amoon na benn agent de l'administration pénitentiaire qui était ingénieur en informatique boo mu mujj gi sax daaf moo ko doon utiliser. moo ko doon utiliser aujourd'hui même Nations Unies dem na fa def fa ay logiciel def fa ay kéemaan yu kenn xamul directeur bi moo bañoon parce que lan gendarme la gisul opportunité ak utilité vraiment dafa ñun ñu gën a avancé mm. ñeneen ñi xam nga loolu aussi kañaan la daal mm. <laughs> parce que faut dire que vraiment dernièrement bëri na ay journaux yi ci waxtaan ak ça alimente pas mal de débats euh, seen ay waajur euh, euh, lan est-ce que am nañu droit vraiment yëngu-yëngal pour que ñu wax leen situation bi seen ay ay doom nekk. mais bien sûr c'est un droit pour les parents de réclamer une situation claire la position ah euh, ku ci am mbokk ku ci am mbokk. am nga droit ñu wax la sa mbokk fu mu nekk surtout que bu fekkee di ñi ñu identifier la daan leen seet si di leen visiter en permanence ñooñu lay wax parce que xam nañ ni ña nga fa daan nañ leen visité daan nañ leen indil plat donc ñooñu bu ñu demee bu mënatuñu jot si ñoom gis leen parents yi ils sont en droit de saisir le procureur de la République. Mmh. mais loolu est-ce que est-ce que ki nga xamante ni peut-être moom moo di suñu ministre de la justice am na lu mu ci encourir bu laisser les choses aller jusqu'à ce que ñi nga xamante ni ñoom ñoo di parents détenus yooyu di jéem a euh, euh, def scandale afin qu'il puisse être euh, éclairé par rapport ak seen seen situation. ah mais bien sûr madame les conventions internationales. sont applicables quand ces conventions sont ratifiées par l'État du Sénégal. Et les disparitions euh, forcées, c'est le cas, entre dans ce cadre-là. bu fekkee ni li disparaître na droit de l'homme dañu war a ñëw saytu loolu Amnesty Sénégal droit de l'homme organisme yi fi nekk ñëpp dañu war a ñëw def bloc pour ñu leeral affaire boobu le paradoxe mooy nous avons un ministre de la Justice, euh, soi-disant, euh, comment dirais-je, militant acharné des droits de l'homme mais dafa mel ni loolu xaw na ko euh, xaw na ko réer tuuti te loolu lu am solo dama ni les détenus euh, qui sont en prison ils ont des droits les détenus ont droit à la santé parce que ku ci feebar war nañ la faj Ils ne sont pas des condamnés à mort, comme dans certains pays. Euh, je vous dis que dans le nord de la Côte d'Ivoire, détenus yi bu ñu feebaraan sous prétexte que bu ñu leen yóbbee hôpital ñu évadé dañ leen di bàyyi ci kaso yi ba ñu dee loolu man mii maa ko fa dindi seeti seeni kilifa yi ñu leen écouter les détenus ne sont pas condamnés à mort ils ont droit à la santé vous devez les soigner quand ils sont malades et les référer disons au plateau les plus appropriés bu dee mën nañ leen faj ci biir prison bi ñu faj leen fa bu ñu leen fa mënul faj ñu yóbbu leen hôpitaux et maintenant à vous de prendre euh, les dis euh, les dispositions pour les surveiller parce que évasion mënul nekk prétexte hmm. pour que ñu détenu nga privé ko de droit c'est pas possible Euh, gis nañu ne ci ñi nga xamante ñoom ñooy kilifa yi ngànk wàllum justice bokk na ci seeni projet pour éviter problème yi nga xamante ne moom moo am Rebeuss surpeuplement ak yu ni euh, euh, de 2000 détenus prison Sébikotane bi capacité d'accueil bi nee loolu moo dëppoo ak les normes internationales en tant qu'expert en détention est-ce que yaakaar nga ni loolu solution la pour jële fi problème récurrent yi nga xam ne moom la détenu di déplorer Rebeuss notamment de cette question qui est très pertinente euh, boo ko xoolee Pape euh, administration pénitentiaire xëyul rek nekk administration pénitentiaire dafa am processus dafa am fu mu jógee ak fu mu egsi prison projet prison nouvelle prison boobu c'est dans les années je crois soixante euh, disons quatre-vingt yooyu soixante-dix-neuf quatre-vingt il le projet de la prison de Thiès qui était estimé à l'époque à 3 milliards Cheikh Ngom architecte mi ngi may dégg parce que moom moo defoon maquette beeg lépp ñu dem c'était autant de Jean Collin mm. bi ñu demee ñu ñu ni priorité Sénégal bon c'est tombé avec les problèmes d'ajustement yooyu yëpp ajustement structurel yi ñëw bokk ci ñu ni c'est pas une priorité ñu toogaat tuuti dix ans quinze ans mm. ñu évaluer waat ko muy sept milliards parce que les coûts de production de yokku mm-hmm. ainsi de suite c'était revenu à 7 milliards et finalement de 7 milliards maintenant 30 ans après mm-hmm. on nous dit que cette prison-là va coûter 3 milliards 500 millions mm-hmm. okay. mais loolu naxaate la et puis c'est une ce qu'on appelle un transfert de difficultés mm. c'est-à-dire les difficultés de Rebeuss parce que Rebeuss dañ koy supprimer vont se transposer dans la nouvelle prison qu'ils vont construire c'est pas la solution et la solution c'est quoi la solution c'est de revoir la c'est-à-dire faire une politique de réimplantation des établissements pénitentiaires en fonction des possibilités de développement parce que le détenu doit être un artisan de développement mais le détenu on ne doit pas tout j'ai j'ai entendu les droits de l'homme par-ci par-là di proposer sax pour l'alimentation deux mille francs par jour et par jour. Hmm. mais Pape sa kër est-ce que ku ci nekk da nga koy génneel dépense su deux mille francs une une famille de dix personnes boo leen génnelee dépense su deux mille francs ñaata la. Hmm. vingt mille francs par jour pour dix personnes. bu dee nit ñi si biti mënuñu ko asamaak ñu nekk ci kaso bi. Hmm. li ñu ko war a defee mooy que le détenu soit lui-même l'artisan de l'amélioration des conditions de sa détention soit à l'origine de l'amélioration des conditions d'alimentation lu ñu mën a def ferme pénitentiaire yóbbu leen fa ñuy liggéey di indi koom-koom seen bopp di indi réew mi koom-koom c'est possible ñun def nañu expérience bi euh, en Côte d'Ivoire avec la ferme de Saliakro ñun ñoo ko fa monté au Congo j'ai monte un projet de ferme pénitentiaire boo xam ni FAO moo ko waroon financé ba bi ma fay jógee c'était en bonne voie donc pourquoi ñun duñ ko def et puis correction yi nga xam ne demoon nañu mission bare nañ fi li ñuy liggéeyal ñeneen réew yi pourquoi ñu duñ ko liggéeyal suñu réew. nous sommes là prêts à collaborer et à travailler pour le bien de l'administration pénitentiaire. Euh, mu mel ni problème yi nga xamante ni nañ ko fii yëpp nekkul ni Rebeuss kese la yem. Euh, yeneen prison yi nekk fii Sénégal en tout cas ci 37 établissements pénitentiaires yi nga xamante moo fi nekk euh, bëri foo xamante boo fa demee di fa fekk ay jafe-jafe di fa nekk ay problème jamono yi ñu génn prison bu Louga exactement ak accident bi fa amoon. accident ah oui c'est le major le major l'infirmier major de la prison de Louga moo doon participer à un transfert de détenus de Louga à Linguère mm-hmm. alors bi ñu demee ba ci yoon bi pneu bi éclaté ñu def ay tonneaux major bi entré dans le coma mm-hmm. si je ne m'abuse aujourd'hui il doit être à presque euh, deux mois de coma mm-hmm. mi ngi réanimation hôpital principal mais Euh, ci euh, li ma ci jot a dégg directeur administration pénitentiaire benn yoon nafa dem ministre bi mu jógee mission New York dem di seeti les blessés xamul sax ni y un agent de l'administration pénitentiaire qui est hospitalisé là-bas pendant deux mois et qui est dans le coma il a fallu que la maman de ce gardien euh, euh hein chevronné parce que moi je l'ai géré à Linguère xam naa booy bi je l'ai à Louga je suis de Louga je le vois évoluer ku chevronné la le ministre ne savait pas qu'il avait un argent qui était dans le coma et dans en réanimation mm. il a fallu que sa maman l'accroche ni ko le ministre man kat sama doom a ngi fii boobu ba léegi kii daal kilifa gi moom ñëw na fi benn yoon mais ministre bi ni ko bon xaaral ma ñëw tuuti il a fait sa visite bi mu paree ñu koy madame vous mu ne ko way sama doom a ngi fii expliqué li ma leen expliqué léegi mu ne ko yëguma ko yëguma ko woon la ko wax ko woon un ministre de la république qui est censé avoir l'information émanant des établissements pénitentiaires s'il dit que j'étais pas au courant ah attention Abdou looloo ko fi jële woon tolloon na ba foo xam ni les gens ne voulaient qu'ils ne sachent que ce qu'ils voulaient qu'ils sachent et c'est ça qu'il a perdu donc responsabilité boobu y a un problème de loyauté bu fekkee ni ministre euh, directeur administration pénitentiaire dafa lu ko rapport ci loolu na ko seet am na yu ñu koy nëbb bu fekkee ni nag moom moo ko wax te loolu euh, amoon na na xool dans son entourage parce que loolu moi je dis que c'est une affaire très sérieuse man bi ma nee régisseur Cap Manuel Bouba Chinois évasion de Bouba Chinois. bi ñu bëma xëyee la garde laa ci Mirador bi mu nekk dans le coma. ma def sama compte rendu yëpp mais ca ëllëg sa la André Sonko qui était ministre de l'intérieur wax directeur de l'administration pénitentiaire et l'initiative venait du ministre lui-même quand il a eu damay seet si waa jooju nekk dans le comment man maa préparé visite bi André Sonko ñëw taxaw na fa 15 minutes pour ñu mën a préparer salle bi mu mën a mën a accéder ci surveillant boobu seet si ko defal ses parents defal euh, visiteurs yi fa newoon vraiment doog a dem voilà c'est ça la responsabilité waaw toujours ci kaaw boobu noonu majeur boobu noonu Seynabou Ndiaye may leeral ne week-end bi passé euh, bi ma demee foofu di seeti détenu yi nga xamante ne ñoom ñoo blessé euh, man personnellement dem naa gis ko mm-hmm. mu nekk na foofu dans le coma alors par rapport ak information yi ñu fi recueillir il se trouve que Euh, moom déjà papam c'est un commandant de l'administration pénitentiaire muy commandant Babacar Sarr yaayam Astou Mbagne tam euh, waxtaan nañu lu yàgg alors moom euh, am na ay autorités yoo xamante ne ñoom elles sont évacuées ko ñu dem faji ko bitim réew mais il se trouve que médecin bi koy traité moom dafa évalué woon durée commande ci 21 jours mais aujourd'hui mi ngi ci 51 jours samedi bi passé la nekkoon ci 51 jours donc samedi ba léegi dooleel ñaata fan moo ci dooleel nga mën a xam exactement depuis combien de ñu dimbali ko évacuer doomam parce que il était en service commandé te c'est fonctionnaire de l'État mm-hmm. pour que ñu yóbbu ko foofu mën ko faj balaay leneen la nga xamante ni moom moo ci moom moo ci xew ndaxte loo xam ne yow médecin bi lay faj daf ko évalué woon ci 21 jours te yaa ngi ci 51 jours de coma mm-hmm. yaakaar naa foofu am na urgence boo xamante euh, war nañ ko def pour pour pour sauver ko mm-hmm. euh, Seynabou Ndiaye li ma dese ci ay minutes ñaata la Ndiaye est jeexaloo jeex na waaw <laughs> <laughs> ah, na fi doomu mooy deux si taw kenn dëgg rubrique bi si topp ma ñaan ko deux minutes wala trois minutes rek. jëlal trois minutes Ndiaye nga jeexal da nga am question boo bëgg. pour alors waaw kon gis nga de mu mel ni kon waxtu bi moo ñu moo ñu moo ñu moo ñu xam am na sax ñu ma yóbbante woon laaj di ma laaj buuba chinois moom buuba chinois jamono yi prison bu Cap Manuel moom mi fa la fekk fa la ko fekkoon. am na ñu ma doon laaj bëggoon nañ mu expliquer un peu dans quelles circonstances la amee woon ak li nga xamante moom mooy prise d'otage bi fa amoon ak yooyu mu ñëw ñu jëlee ko rëbës indi ko Cap Manuel fekk ma voyagé bi ma ñëwee man leen ma bind rapport ni kii place am du Cap Manuel parce que ñett la ñu woon Bouba Chinois Moussa Bambara ak Mansour Dieng Cyclone ay bandi yoo xam ne de renommée connue ma ni ñii seen place du Cap Manuel Cap Manuel ay ñu feebar lañ fi indi rapport mais ñu tànqam lu ma comme ni ñu defee fii ci mutu li indi mutinerie mhm. bi ñu ma tànqam loo Bouba Chinois toog doful buñ ko joxee ay garab rek mu denc ba am na garde boo xam ni doon dose café ni buuba may ma dose café buuba jël nosina yi comprimer yooyu ñuy jox dof yi xóoyal ko ci jox ko mu yegg ci kaw mirador bi ñu dem ba gis ko muy muy jeexu rek Mansour jaar na jaaree ko ginnaaw rek ba mbax ko mu ne bëtt ci kii bi man bi ma yeewee sama kër ma ñëw pour euh, dab ño dab ñu ne ma kii il est dans le coma le gardien là lu ma tudd turam ko mhm. ma daw ñëw évacuer ko indi ko principal il était comme ça il il comme ça ainsi de suite. alors bi may dem di wuti renfort rëbës si la ma Jean Matar Ndiaye le chef de cour à l'époque ni ma sa gars yi jàpp nañ leen fekk euh, y avait ce plan Vigipirate du Sénégal là boo xam ni chaque coin de rue y avait des mhm. benn policier moo leen gis fekk ñu jël en otage benn naar bu doon doxantu génne jabar ji sànni. ni ko dawalal waa ji bañ ñi jam ko paaka ci poot oh. waa ji xam ne boo ko deful ñu rey ko mu avancé mais bi ko policier bi gisee dafa jël taxi topp leen ñu daw tuuti rek mu dóor leen kër poisson ñëw jël rajo bi wow woo commissariat ñu indi panier à salade bi ñu yóbbu ko euh, noonu lañ leen jàppee donc loolu mooy l'épisode bugguma ci gàttal quoi. waaw bari na nag mu ci moom dafa mel ni dara deseetuma ci ci ay simili am na yeneen point yoo xamante waaye temps bi mooy ñu ko. waroon nañu wax ci ENAP muy école nationale de l' administration xam nga garde yi léegi dañu war am école bu ñu leen di former parce que mm. jusque là école de police moo leen doon former waroon nañu wax ci réinsertion sociale kaw mineurs yi ak taux de récidive bi nga xamante ne ANSD mi ko chiffré ci waaw jërëjëf euh, Pape invitation bi ma invité j'ai éprouvé beaucoup de plaisir à venir partager avec vous ces moments vraiment d'information et surtout ces moments euh, euh, euh disons réservés à la chose pénitentiaire mm-hmm. moi je dis que comme disait l'autre nous sommes des retraités en retrait de la chose pénitentiaire mais nous sommes des sentinelles nous n'accepterons pas que ce que nous avons construit des années durant, j'ai fait 35 ans de service dans l'administration pénitentiaire et à des responsabilités. Nous n'accepterons pas qu'on vienne détruire tout ce que nous avons construit ici par des personnes irresponsables, inexpérimentées. Ça, nous ne l'accepterons pas. Et dans la périphérie, nous, a, nous allons lutter pour que cela ne, ne, ne se produise pas. Mm-hmm. Voilà am na yeneen yu ma mais temps bi xaju fi. Mm-hmm. maa ngi gërëm ñëpp di sant je vous remercie. waaw yaakaar naa ne loolu moo nekkoon waxtaan bi man tamit fa lay jaare di tàggatoo rek di nuyu mboolem képp koo xamante yaa ngi bàyyi xel li nga xamante ne moom mooy émission Petit Déj notamment rawatina rubrique bi di rubrique justice mm-hmm. muy fii région de Dakar muy tamit dans toutes les autres régions bépp quartier boo xamante ne daal yéen a ngi bàyyi xel di jógee Petit Déj ñu ngi profité di leen nuyu bu baax baax